li may wax ni bon yaakaar naa kenn duma ci woo mais en analyse pure man dama gëm ni président Macky Sall est-ce que du moom moo bëggoon yóbbu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr à l'abattoir je m'explique non ba non bàyyi ma rek c'est mon opinion xam nga au plus fort euh, crise de la Covid en un moment j'ai l'impression que ak beaucoup de Sénégalais que Abdoulaye Diouf Sarr sax moo ëppoon popularité président Macky Sall waaw te Macky dafa nekk nit koo xamante ni maanaam xajoowul ñu koy tudd tudd keneen loolu dafa mel da ko doon ci euh, Poutine loolu waxoon naa ko fii il aime toujours faire le vide autour de lui parce que mënuma comprendre élection locale jot élection locale jot yow nga taxaw jël dakaar teg ko ci Abdoulaye Diouf Sarr ba pare bénir liste boo xamante ne Mame Mbaye Niang mais c'est c'est quelqu'un qui n'a pas un charisme qui fait rêver dañu waxante dëgg pas de caricature toi no non mais en fait c'est une lecture caricature pas d'accord d'accord mais c'est une lecture léegi nga jël ko jox ko onction bénir ko mu yor liste vous êtes sûr que le président l'a béni ah mais bien sûr président ne am na liste yoo xam ne maa ko bénir il l'a dit ah. en France wax na ko le président a dit y a certaines listes yoo xam ne man maa leen bénir yaa ngi dégg nga bénir liste boo xamante ne bi vous êtes sûr que ni list bii du gañ beneen bi loolu man maa ko fekkee parce que côté boobu laa dëkkee ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Amadou Ba ni ñu waroon muyal a mayoo defuñu ko aux conséquences man dama gëm ne président Macky moom moo élire Barthélémy Dias à la ville de Dakar c'est ça ma